ñimeetu la woo nit sa kër mu nuyu la salaamaaleykum man de damaa sonnoon jaar fi mm. mara naan mm. nga dem may ko mu naan mm. te waxoo ko taxal ci bunt bi tëj dem indi am na ñoo xam duñu maye sax am na ñoo xam duñu maye manque de confiance boobu détérioration rapports sociaux yi mu indi loolu ajàddi ke te il jël ki ci ligne <laughs> euh, ndax <laughs> ba tey dinga moo tax laaj bi am solo <laughs> ndax yow teraanga la ba léegi voilà justement allo allo soxna Degene waaw soxna si nam ma naa la. ziyaar nañu leen. sant buur bu ñu sàkk ci coobareem. ñoo ngi kontaan ci seen émission bi. jërëjëf soxna Subaar si. ñun Italie fooy wootee. maa ngi woote Révenant. waaw kay baal ñu yokk baat bi ñu ngi nuyu mbokk waalo yëpp. waaw ñoo ngi Révenant Révenant ah, ci Italie. waaw maa ngi defoon Dagana ngay woote. Révenant lañ nekk waaw ñu ngi nuyu waa Révenant yëpp macha allah. ñoo ngi kontaan ci thème bi. ndeysaan. adduna bi soppeeku nit ñee soppeeku. dëgg la. ndax Cheikh Amar miy def lu baax ñëpp a koy wax. dëgg la. da koy def te du ko wone. dëgg la ndeysaan. du ko wone nit ñi nag ñoo soppeeku kuy def lu baax di ko wone booye booba ko. dëgg la. da def te yàlla tax. dëgg la ndeysaan. waaye jamono ji ñu nekk léegi lu sa waaye ëppale woon la ko. dëgg la. loolu la war a bàyyi. yéeme na loolu. di def te yàlla tax. def te yàlla tax. ndax yàlla fi muy tëbb du ma sa jeex. dëgg la. kon nag bu la ciy jox ngay jox nit ki waroo di ko damoo. wallaay wallaay ndeysaan. ñoo ngi leen di di leen sant. kontaan nañu soxna si. jaajëf nuyu ñu waa ital yëpp. <laughs> xam nga tootu Abdou Aziz ma fama damay bañ a euh, wax rek ndax alaaji woowoo ma waaye alaajee nga Italie. mais xam nga alaaji tàggu. waa waa waa Italie am nañ gan. am am nañ gan gu rëy a rëy. waa waa Bergamo am nañu gan. <laughs> allah ji fu mu ne nii macha allah dama doon bañ a wax rek na nañu xaar allah allah nga Italie de. bu attan na la na yegg ak jàmm ak salaam daal du toog mën laa muñ ñoom damay xaar ba jot pisam. ba dama ko bañoon wax waaye yàlla na yegg ak jàmm ak salaam ayca bisimilah. donc Adja di ngeen société bi mu nekkoon. Mm. bi ñu nekkoon. Mm. solidarité bi daf fi amoon solo. dëgg la da génn ci kër gi ba law ci dëkk bi. dëgg est-ce que xam nga ni bu njëkk boo amee tool te nekk yow rek yaa sa soxna. Mm. yàlla mayagu leen bant bu taw bu bët sëbbee te taw bari ñax mi bëgg a bëgg a nangu sa tool. Mm. waa dëkk bi dana ànd ak yow may lam xëy. Mm. pour sa tool bañ a booy. teraanga bu nu ko mooy wone na ni la. bëgg nañu nga dund ci li ngay bay. dëgg la ba bu ëllëgee ñun doonu soxla. dëgg la donte amagoo bant donte amagoo. Mm. bant bis boo amee bant nag. enseignement général bi ñëpp daan tax moo daan. na nga xam sa doo doomu sa nijaay diw di mas na maa dimbali. parce que kenn mënul am doole. dëgg la jigéen bu dugg ci kër. waa këram càmmiñam amagul doole. Mm. foog nit ku mu bokkal. Mm. fekk ko fa di ko dimbali. dëgg la te loolu boo ko nëbbee sa njaboot. dëgg la mën na noo bañ a xam rapport yi nga am. dëgg la bari nag koo am turandoo ci kër. dëgg la bokkul ak ñoom ndey ak baay. dëgg la du fi jeex. lu mu séq ak ñoom ca ginnaaw la. dëgg la loo xam ne daf ko xam ba reconnaître ko moo tax mu wax mm-hmm. te léeg-léegi xale yi di leen fàttali sa rapport ak nit ñi baax na. Mm. parce que ku ci nekk danga mosoo man. sëñ laat nee na. yàlla na yaa yokk leeram mm-hmm. àddina yàggul. Mm. ñu ne ko waa Mbàkke mu ni mu li muy gën a gën a yàggati nit ko gën a yàggati. dëgg la. jërëjëf ci ligne bi jëf ah, ah ni nga ma war a def tey <laughs> maanaam El Hadj Pouce El Hadj toog. <laughs> allo. <laughs> allo. soxna si. na ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. bisimilah bisimilah. ñu ngi lay fay bu baax. voilà damay dëgg rek sant li tonton wax. Mhm. le 30 avril nit dafa ñëw sama kër fëgg benn mm-hmm. xale. Mm-hmm. ne ma dama bëgg ngeen may ma ndox. Mm-hmm. ma dugg di ko may ndox génn fekk mu yóbbu sama téléphone. dégg nga. ma seet seet seet gisuma ko donc je me suis moom moo ko yóbbu. looloo fees si dëkk bi nag da ngay bëgg def lu baax mais doo ko ñeme. dëgg la di koy da dugg sa oto. Mm. di daw romb nit nga xam ne kii mën nga ko yóbbu. mais doo ko ñeme. dëgg la. looloo fi nekk nag da ngay bëgg def lu baax mais doo ko ñemee parce que li ngay lire ci journal yi tout hmm. li ngay dégg nit ñi di ko di ko vivre tout le temps. looloo fi nekk jikko jikko yee changé. looloo fi nekk. dëgg la. et aussi suñu ñu bëggee changé. Hmm. li nekk ci réew mi li ngeen di wax li ngay di indi comme thème yëpp. Hmm. ñu tànn ñu jéem a changé ni ñuy tànnee suñu président Tata Diegane. parce que nous sommes dans un pays. musulman. jéem a xool nu ñuy tànnee suñu président. Mhm. am ay critères yu wóor. yu ñuy mhm. teg pour mën a tànn suñu président xam ne nous sommes pas dans un pays européen. Mhm. nous avons nos lois nous avons nos cultures. jërëjëf jërëjëf soxna si kontaan nañu. jërëjëf jikko yee changé. moo tax kenn ñemeetul c'est-à-dire nos valeurs culturelles positives. moom moo changé dëgg la. kon maa ngi lay wax maa ngi nekkoon fi ma toll woon. ñu ngi ca démb. ca ca démb ca démb ba ba Sénégal nekkoon réewu ci bi. waaw ba ba mu nekkoon bi ni ñu ko defoon. ba lépp am. ba dëkk bi ànd ku ne xam. ba ku ci nekk tey loo xew la ñëpp yëpp. waaw kay. bu loola dal ñëpp yëpp. xala teraanga amee woon sens na sens. demal demal ñëw léegi ci modernisme. dëgg la pare nga ci démb. waaw. dafa buñ ci yàggee da on de d'aller à la fin de l'émission waaye li nga doon wax dafa neex. parce que baax na nit ñi fàttaliku démb xam nga lu tax. Hmm. tax ñu naan tey. baal baa ma am na ñoo xam ne suñu déggee li wàññeeku. Hmm. waaw waaw baal ma taxaw foofu hmm, kon. donc ki nekk ci dëkk bi. nekk fi ak papaam ak yaayam. ñuy màgg ci loolu boobu solidarité. day dem ba loolu lay gis. heure añ nit ñi ku ne mën naa ñëw añ sa kër morom. doo siis bu njëkk. xale bu fekkee ni dafa siis. kenn du ko may. Mm. pour dafa amoon nu doon dindee jikko bu ñaaw. ci xale boo xam ni pour toj xol bi. pour toj xol bi ni ko li nga am yaa ñëpp ko dëgg la. bu lakk amee ci dëkk bi ñëppay dem. bu mm. kenn amee dina la jox mbubb moo xam sax jotu la. Mm. loolu mooy la solidarité sociale. loolu mooy règle yi nga xam ni. moo ma si régir suñu société. ba tax na kenn ñi mu wuccee def la neex. ku ci nekk dafa am ku lay surveiller. koo xam ni am na droit ci yow boo xam ne bu ko dee exercer doo ko bañ. te bu dëkkul ci kër gi génn. jóge ci geneen kër ñëw dëkk ci kër gi waa kër gi duñu bañ mu def ko mm-hmm. kon donc ku nekk amoon na ak accès ci sa morom mm-hmm. mais dafa amoon limite bu mu doon yem parce que nit ñu yiw lañu woon dëgg la dëgg la jikko ya nit daan na xeex ak jabaram ci biir kër mm-hmm. nga ñëw jàpp ci loxo jaaroom indi sa ginnaaw kër ak màggat gu jigéen tëddal fii ba suba dëgg la te kenn du ñëw dindi ko dara du la ci fekk dafa am benn charte bu nga xam ni en 1236 après le la bataille de Kirina dañ ko defoon ay charte def ko ay règle jël ki ci ligne bi. <laughs> tonton di nga jël ki ci ligne bi tamit de allo. <laughs> allo soxna si. waaw na def. di leen ziyaar di leen sargal. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf waaye. tonton Aziz mi sama mbokk waa Thiès la xamante nañu bu baax. ndeysaan. waaw damay yëngu damay yëngu ci tourisme. ndeysaan ah, macha allah. waaw man la soxna Awa Guèye. ah oui d'accord Guèye. waaw na nga def doomu madame Guèye bu Thiès. si si je bien je connais bien. waaw. awa ah, na nga def ça va maa ngi sant yàlla léegi seen bi. Mhm. dafa am importance parce que comme damay yëngu ci tourisme. te dañu naan Sénégal pays de la teranga. Mhm. te ñun ñu fi yëngu ñu xam ne nekk wax dëgg yàlla am nañu ay problème mhm. problème yi mooy. nit ñi amatuñu accueil bi ñu ci waroon am. pour accueillir sunu gan yi. gan bu ñëw boo demee ci marché ñu ngi lay bun xataal. di bëgg jaay par boo jëndulee ñu saaga la. Mm, lu ma la wax. nee la. Mm. war war waru waruloo woon ñëw ci dëkk bi. Mm-hmm. wala nga dem ñoom daal lépp intérêt la. lépp intérêt tout euh, teraanga intérêt. voilà teraanga intérêt la. jërëjëf. taximaan yi nga xam ne ne que wax dëgg yàlla ñu ñu ngi am na ci ñu ci xarañ. Mm. mais am na ñoo xam ne bu ñu gisee yabee tubaab rek yokk nañu prix ba. dañ ko dañ dañ koy dañ koy multiplier par dix. waaw ba nga xam ne loolu yëpp. c'est des retours que ñu dañ koy dañ koy recevoir ñun. parce que touriste boo bu ñaaw. Mm-hmm. bu àggee dina bind yónnee e email. Mhm. wax la ne du kon mag fi Sénégal. ba pare décourager ay mbokk touristam. voilà donc du coup. Mhm. donc on a plus de revenants loolu mhm. moo tax ñun suñu secteur bi dafa yàqu. dégg nga parce que période pays de la teranga boobu wuyatul ak nu ñu nu ñu ko doon waxee daal. waaw loolu moo taxoon ma ne tonton sax li muy wax na gaa. Euh, aspect social bi mais aspect économique bi nga xam ne que. très important ngeen def ko slogan. Mhm. le Sénégal pays de la teranga. Mhm. def naa euh, tur bi wu yootul ak ak ni ñu mel. actuellement mhm. waaw moo bëggoon rek ñaar sunu mbokk ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi. nekk ci site touristique yi. nekk ci taximaan yi. ñuy gën a accueillir sunu gan yi nga xam ne nekk ñoom bu ñu ñëwee. dëgg la ñoo tax hôtel yi di marché. dëgg la moo tax agence yi di marché. dëgg la moom moo tax. Euh, suñu doom yi liggéey. ñëpp di liggéey. waaw le tourisme est un secteur transversal. dëgg la toutes les parties de l' économie. Mhm. jaaykatu gerte baag salade baag hôtel baag même waa Sénégal sax am nañ dëgg la. waaw dëgg la merci Guèye seen émission bi. merci Guèye merci Guèye waaye am na solo am na solo merci. gis nga li mu wax nii. ma sof léegi ci li mu li mu wax. waaw parce que moom paquet la woon mooy paquet ba ma la joxoon <laughs> marché Kermel ak ak yooyu. léegi dafa am xam nga taximaan yi ñooy première vitrine ko wàcc aéroport ñoom ngay njëkk am benn réunion. Ah. boo xam ni dan ma ci woowoon. Mm. ci aéroport. Mm. ci benn centre technique bu nekk foofu. Mm. ministre du tourisme bii. ak ku ñuy wax Pamel Diop. defe naa mooy le le directeur de l'ADS ñu dajale woon ñi fa nekk chauffeur de taxi. Mm. ñi yor pousse-pousse yi. Mm. ñiy jaay. Mm. pour waxtaan ak ñoom ñu invité ma ci ma dem ci. <laughs> mais Adja Degen la première vitrine. du Sénégal c'est l'aéroport. international de Dakar. ci pousse-pousse yi. am na ci pousse-pousse yoo xam ni. dañu dénoncé ni dañ ko bindoon. Ah. parce que amoon naa ci ay recueil. Ah. yu ni pousse-pousse yi sax dafa am ñoo xam du leen jël. pousse-pousse mooy la kii yooyu chariot yooyu. mais kenn gisatu leen. dafa am ñu koy denc. mais déedéet. am na ci Maguette ak ndey Kumba Saam ñu ngi may dëkk yow dañ ma ne def ci teb ñu ne soo tukkee ba ñëw doo gis pousse-pousse dañ koy denc. justement léegi bu fekkee ne yow sénégalais nga nga jógee nga jógee bi ci yow dellu si. pousse-pousse yooyu dinaa ci dellu si parce que damay bañ mu enveloppé. waaw waaye man nga ma wax benn thème bu ñu ma waxoon ma fàtte ko. <laughs> <laughs> bi nga waxee pousse-pousse damaa tiit allo. Ah, <laughs> sant bu baax. ça sant alhamdulilah. ñu ngi sant buur bi ñu sàkk bu wér. da ngay dama laa bëgg rek te yàlla tax. bëgg delloo naa la cofeel gi te yàlla tax. yàlla xam ne dama laa bëgg rekk te yàlla tax. tudd ak fooy wootee soppe. naa leb tur bi. Ah, ko kon ma wax daal sama xaritu xol. billaay. la. rek te yàlla tax ba mu jeex tàkk. kon noo sant boo comme ça ma sant noonu. jàll laa sant. Ah, ah, ah kon jël nga sama sant. jàll doom baay kontaan na wallaay dama laa bëgg rek te yàlla bëgg naa la doom baay. toujours maa ngi dëgg la dëgg la doom baay dëgg la. ndeysaan na yàlla fayal ñu leen. amin amin amin mm. donc acte civique la. Mm. mooy chariot yi. Mm-hmm. chauffeur de tax bi nga xam ni. fixé nañu tarifu aéroport ba ville ñaata la. Mm. bu bu dee nit ku xonq wala kuy làkk làkk bu olof rek nga yokk ko. <laughs> bu dee antiquaire yi jaay. Ah. bala ñoo mën a yokk prix wala ñu xëcc la dañuy dem ba nit ki ah. dootul bëgg sax génn dem di ko jëndi jërëjëf te loolu objet yooyu moo leen indil Afrique pour am ci souvenir mais est-ce que xam nga forme d'agression la nit ñuy def touristes yi mais agression la ba pare agression boobu nga wax da ci wax baat boo xam ne démb da nga gé dawal benn élément mm. boo xam maa ngi ko doon suivre Thiara mu mel ni boo di compter ci biiru xeet fii sax la gën a méttee ka fële. Hmm. parce que fii dangay ngay jàkkaarloo nit mu lay xool di la xool. Hmm. ndax comme sénégalais ma am na ak ña ko wax am na ñu ci woo bët. Hmm. te soxor. wax la wala ñu jam la wala ñu dompat la wax la loo xam ni. même boo ko déggul. ton bi sax wane na ni liñ lay wax neexul. waaw ajool nga dégg làkk bi nga dégg. waaw dégg ngeen parce que gis nga nit bu xamee. boo waxee moom wax bu teraanga ci sa ci sa intonation. Ah. daf koy xam dégg la. ci ni nga waxee. dëgg la koy xam dëgg la moo tax nit ñu ni ku wax feeñ. Mm-hmm. foofu la baatu jógee euh, baatu ku wax feeñ. bi jógee la dëgg parce que boo waxee rek traduire expression sentiment. dëgg la yi ngay yi ngay dund sa digganteeg nit. dëgg la donc loolu ñu am tey jii ci réew mi. Mm. ñaar moo ko waral ni moom la. Mm. ba ci ñett. Mm. bu njëkk bi mooy la crise des valeurs mooy ni suñu société na mu meloon meletu ni <laughs> waa bàyyi bàyyi may jël ki ci ligne bi tey rek allo. <laughs> oui allo soxna si. waaw kilifa gi. ñu ngi ziar bu baax waay ñu ngi nangu ziar di leen ko delloo. yéen yàlla dafa leen jàmm bu baax a baax. amiin amiin amiin yaa bi vraiment c'est très intéressant. ndeysaan. dëkk bi nag ko wax. dëgg la. wante yéen yéen ngi éveillé gaañ bu baax la. ku baax ki. maa ngi ñaan Mawal ni ko doom Maodo Sow laa maay téléphoné fii. ndeysaan. ah d'accord merci beaucoup. maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar ndeysaan ndeysaan kontaan nañu kontaan nañu. donc Adja di ngeen euh, loolu ñu ni mm. Mm. ñàkk gi. ñàkk gi. ñàkk gi moo tax teraanga toxu. seuil de pauvreté bi. waaw moo tax teraanga dem na ku doon def teraanga ku nekk. Mm. dina la bundu xatal bundu karal boo xam ne coono ba nga ciy jëlee dootul xaw a jar teraanga ji. waaw mais tonton foofu dama bëggoon ñu taxaw. taxawal parce que baatu def teraanga defal naa ni teraanga ak Sénégal réewu teraanga dafa am différence. ak jigéen ji nga xamante ne ne mu ngi sëy ci kër te soo deful teraanga ñu ñu ñu ñu ñu ñu mere la dafa mel ni ñaari baatu jigéen bi nga xam ne soo sëyul def teraanga ñu mere la ak ki nga xam ne moo nekk ci réew mi di defal nit teraanga bokkul ba tey ak teraanga gi nga xamante ne ne li ñuy naan Sénégal réewu teraanga la dafa mel ni Sénégal réewu teraanga la globalité boo xam ne la mu ëmb yépp ci ay xeetu paquet bëri na te lii ñu ci wax nit kiy def teraanga ak ki nga xamante ne yooyu ay démembrement la ci loolu loolu xaw ma ndax ci olof noo ko mën a expliquer ba mu xam nga fi may waxee bu baax xam naa fi ngay ndax Sénégal soo ne réewu teraanga la lépp ngi ci lépp ngi ci jikkoo ngi ci jikko la jikko bokku la ak ki nga xam ne ñu ngi lay xaaree xaalis wala yàlla mu ne la gan ngay defalaate teraanga oh, mais jikko jikko ya tonton yóbbu ma ci jikko yi <laughs> waaw tonton jële ko ci ligne bi bi baax allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw dama bëggoon mais yow la ñuy déglu wax nañu sa ak fan ngay wootee man euh, France laay wootee tur bi koy leb <laughs> dina di ñaaral ngeen yàgg fi lool te wér. amiin amiin amiin yaa man euh, li ma li ma metti mooy léegi jikko yi dafa soppeeku comme ni ñu ko waxee man France lay woote. Hmm. ndax léegi da ñëw même soo bëggee dem sa kër mbokk. Hmm. duñ la accueillir bu baax soo amul. Hmm. voilà jikko yi ñoom ñoo soppeeku léegi sens de famille moo amatul. léegi micro famille la papa yaay doom. Sénégal loolu daf fi jógee. loolu la ñu war a wax loolu si loolu la ñu war a waxtaan. waaw maanaam soo ñëwee Dakar léegi yaa ngi Europe. léegi léegi européens yi ñu ngi commencé euh, nit nekk majeur ak yëpp nekk kër yaayam. Mm. mais ñun léegi papa yaay doom. Mm. soo ñëwee mën nga jógee France sax ñëw kenn du la jox lekk na la lekkal. Mm-hmm. man sama jëkkër woor na ñëw sama kër nijaay. Mm-hmm. di di xaar ma ñëw pour mu jël si ma. Mm-hmm. wooroon ba jant soo mais kenn joxu ko sax mu lekk. xam nga loolu dafa ñaaw. dëgg la. man daal man li ma fi ma bëggee ngeen gën a insister ba aspect économique bi. yee nit ñi pour ñu li nga xam ne mooy suñu valeur. ay valeur ay valeur valeur ay valeur ay valeur jërëjëf. waaw loolu rek laa amoon lu jërëjëf mais gis nga immigré yi euh, Toto Abdou Aziz ma femme euh, gis nga ku ci ñëw ci sa biir ay propre mbokk. muy am problème déedéet toogal 48 heures te génne woo sa retraite il faut nga dugal loxo ci poos pour waxtaan wi commencer neex. teraanga Sénégal léegi teraanga intérêt la Toto Abdou Aziz bien ma ne la bu njëkkaan xam nga suñu borom bi ndeysaan lim ñu digal moo tax yow mal xii am dina xumba dox mbokk foo ko gisati léegi gis Toto Abdou Aziz da ngay bokk ak nit ndey ak baay nga yow sa kër di sëy wala bokk sa benn nijaay lenqe mais su ñëwee sa kër deux dimanche nga naa waa kii li muy taxawaalu <laughs> waaye kii kii kii circulem bëriwul wala boog day ñëw nga ne tekk di xool ndax daf lay euh, wax problème fekk ne kooku ma ngay topp la charia wax ma ngay topp li diine wax mm. di ut tuyaaba waaye su ñëwee ñaar eh dimbale ngeen ne ko nekk fi waaye yow kii lambala kii amul jot kii amul jot tuuti dama la bëgg wax dëkk bi ci jëm boppam même mbokk gi gën a basique mënatuñu ko dox bokk ay association ma leen gënal bokk mbokk dëkk bi dafa toj. mais mais mais mais. na. allo jëlee ko ci ligne bi. <laughs> allo. waaw salaam. sëñ ñu ngi lay ziar bu baax sëriñ bi. Ah, yàlla yàlla nangu ziar. noo tudd ak fan nga ñu woowee. maa ngi tudd Bàcc Ndiaye yow rek la déglu. waaw li ma doon déglu maa ngi leen wax keroog ñu ngi wax ci aéroport bi. Mhm. ci laa bëggoon a sànni kaat. Mhm. ndax ñu nekk bitim réew bu ñu wàcc Dakar tey booy wàcc rek fekk nga ñu jël ko boo ñëwee bëgg a jël sareet te ñoom bu ñu ko téye dañuy wax ne dañ ma jox dara pour ñu jox la sareet xam nga loolu teguwul fenn. kay moom moom moom sareet moom tem la moom. waaw léegi sare yooyu moom problème bu ne la. Eh, ndax boo ñëwee bëgg a def sare yor say bëgg a ñu tëye. Hmm. yow yow yaa ngi yor say bagage war koo jël génn sare moom amul benn normalement war ñu ko téye. moom kay moom doo xam fu mu ne moom diil bu a ngi ci aéroport bi. waaw surtout nag mu nekk heure Tabaski bu nekk heure moom la gën a doon hmm. boo waxee gars yi naan da ngay neexal ndax dëgg dafa dëgër ndax dañoo am li wax def nga leen te li ma ci gën a métti mooy gars yi ñoo ko téye yéeme na lool bàcc. waaw am na beneen affaire nag ba tey bu ma xam émission bi déggoon naa ko temps yii baax na ko teewoo hmm. bu ñu wàccee aéroport yi dañuy jël léegi këyit yi tubaab yi jël seen passeport di fay seen passeport jaar leen ci a ñu tampon leen ñun sénégalais yi ñu bàyyi la ñu ram. waaw ñun Sénégal ñu bàyyi la maa la loolu waa tonton père dégg bi. waaw yéen a waaw ko déggee dana dégg waa seen thème bu départ daa nag damaa amul woon mun woon mu mën a tey xaaral ma jéem a yi ñu dëkk ci dëkk bi daal nañu rang waaye tubaab yi daal dañuy jël seen passeport tampo leen ñu dem. tampo leen ñu dem waaw. waay lii. maa la wax man maa ngi woon Italie dëkk bu ñuy wax Modica. wala walaay walaay walaay walaay. waaw musuma woon nag ba nga si sët bu ngeen cee mbokk ma mun moo dugg. lii kay naqari ku ne bàcc. waaw waaw ndax xam nga ne yow en tant que sénégalais ñëw bëgg a dugg maanaam tuutil la dëkku jàmbur tuutil la sa réew. waaw loolu daal moo doy man xàmmeetu ko nag man. ndax du baax yi nga doon nettali. defe naa ni yow ci ci dangay da dund ci coono. Mm. parce que valeur. Mm. yi nga incarné. Mm. te bëgg ñu ci waxtaane pour société mel noonu. pour ku ci nekk. delloo si rek jàmm ci dund delloo si démb. waaw parce que wàññeeku weesul tonton dafa wàññeeku weesul. waaw wàññeeku weesul mais da nga indi benn différence bu am solo. Mm. ci Sénégal pays de la teranga. Mm. nit kiy def teranga. Mm. ak jigéen ji nekk ci biir këram. di def teranga. boo xamul teranga wala amuloo ko. doo ko joxe. foog ñu jàngal la ko. xam lan nga koy même maye sax. wala ngay defal nit lu baax sax dan la koy jàngal. Mm-hmm. wala nga roy ko ci nit ku baax. bu dee jigéen ji sëy ci biir kër gi mm. ci foofu laay njëkkee parce que moo gën a metti ci mm, àddina mm, actuellement Adja Dégène dañ daan tànn jabar pour équilibre boroom kër pour équilibre boroom kër kenn waxaale wu ci njaboot jabar moom kenn du ci waxaale naan dama ci waxaale pour am ci doom mais yéene ngi ci kon doom ji ci wàll si bénéfice jël ki ci ligne allo <laughs> allo salaamaaleykum waaleykum salaam Tata Degge ñu ngi lay ziar. soxna si fay nañ la di leen sargal. ñooy delloo sargal yéen a moom sargal bi. jërëjëf jërëjëf waaye ndeysaan. ndax li ngeen ñuy defal neex na lool. jërëjëf. di ñu tegaat ci yoon. ndeysaan. di ñu wéttali. ndeysaan. kon ñu ngi leen di sant bu baax. di leen alhamdulilah rabbil yàlla def na nag ñu sopp la lool wax dëgg yàlla. wallaay bëgg nañ la bëgg nañ la Dunia FM ba léegi. ndeysaan lu yàgg lu ne dëgg la. loolu dëgg la. ndeysaan jërëjëf. Eh, eh, déggoon thème bi lool mu am solo lool wax dëgg yàlla. Hmm. yàlla def ñun ñuy dund bitim réew. Mm-hmm. te li ngeen di wax noonu dañ ñun dañ koy gën a gis. Mm-hmm. ndax xëy na boo nekkee ci biir sax liñ ci liñ ci liñ ciy dund pro du bokk ak boo nekkee ci biti. Mm-hmm. te taa dëggeen Sénégal mën nañoo ni crise de valeurs moo fi am. bu wér. du teranga rek. dëgg la. te taa dëggeen boo génnee bitim réew léeg-léeg da ngay sax ni wax ni man sénégalais laa. dëgg la. ndax dañ ñu yaroon ci loo xamante ne nii gisatuñ ko. ñun yàlla ñu yàlla dimbali ndax dinañ ko mën a jox suñuy doom ndax du loolu la ñuy dund. Hmm, réer na de. na torop. réer na torop. Hmm. Hmm. ndax li sëriñ bi doon wax sànq tonton nu mu tuddati sax. tonton Abdou Aziz ma femme. tonton Abdou Aziz. Euh, donc da doon wax yar bi. mag ñi liñ ñu yare woon. donc li ñuy wax ku jàngul doo tari. dëgg la. buñ la yarewul benn yar bi mënoo ko mënoo rëy pexe rëy pexe ba dund ko. dëgg la. amuloo yar bi. ndeysaan. kon dañu war a delluwaat lépp delloo ko ci éducation. dëgg la. muy lu am solo ci nit. Hmm. te Sénégal yaratuñu. dëgg la. ndax yàlla nattu na ñun jigéen ñi bu ñu sañoon dañuy dund ak rek suñu jëkkër rek suñuy doom. kese. te am na ay valeurs yoo xamante ne nii pour nit di ko am dëgg il faut mu dund ci këru famille. foog maam ne fa ak bàjjan. di xam mbokk dëgg la di xam doomu nijaay di xam doomu bàjjan. dëgg la. di xam ay mbokkam. dëgg la. di développer foofu dund bi culture parce que di suñu culture dëgg xam. Hmm. malheureusement loolu amatul. dëgg la. ñu ñun suñu bopp ñun mag ñi nu ñu neex la ñuy dundee nu ñu neex la ñuy defee. Hmm. yar bi daal maanaam jàpp naa ne lépp daal dafa war a dellu ci éducation. dëgg la dëgg la. éducation bi daal la war a xoolaat. dëgg la yar bi xool dund bi nit ñi. dëgg la. yëf yi laaj doy na waar dara léeg-léeg da ngay xoolaat télé yi au moins di jëlaat courage tuuti mais des fois nga dem ba ci biir ñun surtout ñun ñuy dund Europe. ndeysaan. da ngay da daal. xalaat sa njaboot dëgg la lan lay dëgg la dëgg la ndeysaan. doo xam fi ngay teg sa tànk. dëgg la dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla am na solo lool. jërëjëf. te dina tax nit ñi di fàttaliku seen démb. di fàttaliku seen cosaan jërëjëf jërëjëf soxna si. yàlla nañu yàlla sàmmal. allahumma amiin defal ñu ci njaboot gi lu kawe suñu allahuma amin ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu gis nga soxna su si tedd si dem euh, li mu wax am na beneen soxna soo xamante ne dafa woote woon tamit démb Toto Abdou Aziz Europe di wax ne moom trent ans nga ni mu ngi vivre Europe moom nag nee na bi mu fiy jógee am na lu wéy juram defoon ci moom ba muy vivre foofu tamit di fa njaboot inculqué na ko lañ ko yaree woon inculqué na ko ay doomam ci ay valeur ci ay valeur ci ay nee na ba nga xam ne xale ya macha allah teraanga yooyu mais moom nee na moom moom mi vivre foofu 30 ans su ñibbisee xàmmeetul Sénégal <laughs> mais nee na day nostalgique ca époque ya nga xamante ne loolu lay amoon waaw man Toto Abdou Aziz man lan moo indi changement bi lan moo indi changement bi ndax man li ñuy naan Sénégal réewu teraanga la réewu teraanga parce que teraanga nit mën na bañ a am xaalis te nekk nitu teraanga Sénégal réewu teraanga suñ koy wax du du am am jikko la li nga wax nii di euh, keroog euh, li nga wax nii su ma ci boolee léegi euh, li tonto Njaay loo doon wax keroog tamit ci sàq sa sàq moroom ba nga xam ne léeg-léeg mag nga gis nga gëj ko gis mu dem ci sàqam guddi ngeen dajaloo dem defaat ca sàq ma wax ko ci secret soo xëyee mën nga dem mais yooyu ay valeur la woon su suñu demee ba nga xamante ne avant ku dugg ni nga ko waxee léegi sukk loolu ay valeur la woon te pourtant yàggul su suñu demee ba nga xamante ne ne tonton Abdou Aziz ah ci au sein d'une même famille ku ci nekk yéeneen te jàmm na kenn liggéey ñëpp a koy kii mais léegi dugal ci kër gu mag gis nga peccoor ga ya fay sëy di nga xam kan la jëkkëram yor kër gi ak kan la jëkkëram yoroon kër gi hmm. te li gën a bon mooy ndey yi ñoo koy suuxat ak ak papa yi allo xale yi defuñ dara de y salaam ah, noo tudd ak fan ngay woote euh, waaw France lebal na leen seen tur yow la ñuy déglu <laughs> ah man dama bëggoon laajte eh, Afrique yi itam dafa doy waar parce que ñu bëree ngi fii boo bëggee dinañ fi def ay fukki at ak yooyu ci góor ñi bàyyi seen jabar Afrique boo leen nee nañ dellu ñu naan la déedéet yore naa samay kayit mais aw ma xaalis bu may dellu tem waa Sénégal boo fa yegg si affaire yi doy waar. léegi jabaram jooju nekk foofu ak boobu ñan lay daal jabar ji eh, jëkkër ji wala ay waa këram wala waa dëkk yi te loolu bëri na fi xam ngeen loolu itam doy na waar loolu yëpp xaalis bee ko waral. dégg yow kooku nga mais normalement ñëpp nga war a servir am xaalis ba dellu Sénégal gis sa jabar. Hmm. ay 5 ans 6 ans voire 10 ans catastrophique man yooyu laa bëggoon ngeen wax ñu ci tuuti daal. dëgg la dafa bokk ci problème bi <laughs> nag. non parce que ku bu ne nga indi thème bu waaw tonton xam nga lu tax. Euh, paquet xam yi day am ay dérivé ku yorul hmm. su fekkente ni ni mu ko waxee nga yor nga nekk bitim am 10 ans mënuloo ñëw parce que dajalewuloo te crise ba dafa gën a metti nga ne su ma yorul dara du ma dem Sénégal parce que xam nga ni fii li ma la waxee soo fi wàccoon wax naa la fi sànq wàcc fi ñaari fan rek xam nga lu ñuy njëkk xool xoolal na kenn ñëw dénkaane ay bagages am aéroport rek yor saako dóor rek dem Ndar wala <laughs> Louga wala Casamance wala fenn rek ñëw toog wala une semaine non yaay ji moo koy njëkk dammee xef ne la gàcc nga ma teg ci réew mi du du du du xalaatul ne am na ay xale yu fa dem dee fa des fa yow bàyyi ma yow totoog <laughs> des <laughs> allo. allo. waaw sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi sant sëriñ Touba bu wér. waaw mais ñu ngi lay noo tudd ak fan nga ñu wooye. waaw damay lépp tudd nag te taalibe Serigne Saliou Mbacké la. ah kon ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax. kontaan nañ si waxtaan yi lool lool lool. merci beaucoup. waaw sànq ba léegi maa ngi déglu sa wax di nga sa premier wax dafa am solo trop. dëgg la si ndox daan taa ba tey boo fa demee fekk fa tepp tepp. te waxtaan boobu dafa am solo trop ba ci démb dama dem ci jàngu. maam Ibou saako bi. Hmm. ma dëgg ma déglu fa waxtaan bu am solo. maa ngi déglu waxtaan bi bi may dégloo waxtaan bi dafa am at ñoo xam ne maam Ibou saako dafa woo doom ji ne ko damaa bëggoon ak lii di ñëw de gàmmu màggal gi teg naa ko sa loxo. Hmm. ne ko nag lépp sas naa ko. te boobu nee na fekk moom mu saako yorul dara. après mu dem si Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou Mbacke jox ko ñaari million mu jóge fa dem sëñ Mansour mu dem Tiwaawan ñu jox ko fa ay baas ak ay nag donc ñuy def li baax ñu ngi def lu baax ba léegi. moom ma mu bëggoon ñuy roy si ñooñu. Hmm. ñuy roy si ñooñu lu am solo la. parce que si kilifa diine yi lañu war a roy. Hmm. xoolal waxtaan googu rek waxtaan boobu dama ko jàpp ba ma ne xaaral ma participer seen wàll loolu dafa neex. ay valeur rek xoolal si Touba dafa dem Touba ñu jox ko ñaari millions jox ko. ay valeur rek jóge fa dem Tivaouane ñu jox ko fa ay ko ay baat. ñu mm. jóge fa dem Ndiassane jóge fa def Laayeen loolu loolu mi ngi nekk ba léegi mais jikko jikkoy léegi. Mm. c' est l' argent qui pourrit ce monde. Mm. oui c' est l' argent qui pourrit ce monde et puis a à qui on peut faire confiance. donc yàlla nañu yàlla dolli sutura. Mm-hmm. te te fay ñu suñuy xol. waa dama toog kilifa bu mag mu ne ma am na yàlla yàlla may na ay doomu aadama yoo xam ne nii xam nañ li ne si xolu doomu aadama. Mhm. donc yàlla nañu yàlla fay su nekk. amiin amiin yaa rabbal aalamiin toto Abdou Aziz. waaw ah, ngi woon ci. non jal bi ma la jalal <laughs> dama la jalal ay jal ni pourquoi rapport yi dem. Eh. rapport yi li ko li ko li ko yóbbu. Mm. la décision des rapports sociaux. Mm. moo di alal la ñu indi teg ci kanamu lépp. te bu njëkk nit ñaa ngi daan ànd ci ngor. Mm. ci jom ci jomb-jomb ak ci doylu ci kersa ci kersa ak ci maandu wóor ma fekk nit ku nga xam ne jàmbaare fàkk tëdd lay doon ñu xam ndeyam xam baayam mu am jom nangoo liggéey mm. as bu amee jom nangoo liggéey di jàmmu yàlla mm. mën naa am wërsëg gu nekk mm-hmm. nga jël sa doom dugal ci mm-hmm. bu fekkee ni tànn gi ngay tànn jabar mm. li ko conditionné mooy famille bu am mm. ak jabar ja la mu am yax boobu mu bokk mm. ak alal janu am bu fekkee ni loolu nga ko tànne ci coono kese ngay dee mm-hmm. bu fekkee nag yow danga daan tànn jabar ci base ba naka daan tàmmee ba tax xale yi buñ juddoo am jikko bi nu bëgg ci ñoom moo daan danaan seet këru sëykat koo xam ni ci wàllu sëy daf ci am taxawaay mën a muñ seen famille nekk famille boo xam ni famille kersa lanu ak xam-xam nga jëli ko indi sa kër pour wut jikko ju mel noonu. ci sa biir kër. Mm, mu law fa mu law fa. aw lawtaan la aw lawtaan lay doon. Mm. doom nag waxoon naa la san kenn waxaale wu ko ci mais yàlla mën na koo buñaa ci diggante. dëgg la bu ko ca fekkee nga yaakaar ci doom ju baax. Mm. ju am jikko ju rafet joo xam danga koy tàggat. ginnaaw jikko yu ñu tànn ci ba ndeyam. dañ koy tàggati ci biir kër gi pour mu génn ci askan wi. génn ci réew mi. pour mën a jariñ réew mais loolu bi mu dañee. xaalis falu. moo biaisé rapport non moo rapport yi. moo yàq àddina moo yàq àddina. jërëjëf. Adja Digeen. Mm. ci kër goo tàbbi. Mm. bu njëkk. Mm. ka fa manoon ca toolee di jàmbaar. bu nu déqee toolam indi jaay gerte gi def ci sàq mi def dugub ji ci sàq mi. ci li muy dundee lanuy dundale ñëpp te dëkk mm-hmm. sañu koo damoo. Mm-hmm. léegi boo bokkee nit ndey ak baay. wala ngeen bokk bàyyi nekk ci biir kër. di joxe ci biir kër gi sax am na décision xam bu ñu ko jëlee te fekkoo bu ñëwee nga dindi ko. la ilaha loolu mooy la destruction des rapports sociaux. loolu am donte donte donte yaa fa gën a ndaw. donte yaa fa gën a ndaw. waaw loolu mooy indi. gis nga hiérarchie bi. waaw nin ko tegalee. heure bu ko nit dindee rek. nga gis ni am na ressort bu damm. waaw boo xam ne kenn mëntu ko. suuf waaw te ressort tubaab yi dañ ko mandargaal mais ñun ci famille lañ ko gis. Mhm. ressort mooy liy denc te boo ko xëccee mu tawee mhm. mooy famille dafay tawee kenn daan liggéey ci biir kër xoola léegi. Mm. mais depuis que je suis à Dakar bon tu sais la famille j'ai des cousins qui sont là qui ne travaillent pas. je ne mm. pas nourrir des bouches. làkk boo dégg kooku. waaw làkk jëmale ko seen waa waaw xamal ne am war na. wa waaw war na bàyyam war na war na yàlla it nag. jërëjëf war na yàlla. war na yàlla war na yàlla mi wax mbokk. war na yàlla parce que li mi wax mbokk alalu yàlla. justement parce que borom xam-xam yi nee nañu bu la yàlla joxee fukk. daf laa séddale loo ndax kenn xajul ci kenn nit benn xajul ci kenn nit dëgg la donc type de rapports sociaux yooyu nit ñuy yàq mm-hmm. teg alal ci seen kanam ak mm-hmm. bëggee mm-hmm. ak xawalatoo sax nit ki nga bokk lu dul bu sono bu sonnee te waxula ko mm. nga nga gën a kontaan bu la ko waxee boo ko defalee sax wane ni man maa ko defal jigéen ji ne ci biir kër gi nag mm. ñu tànnoon ko ci valeur yooyu mm. indi ko kenn xaarewul mu joxe teraanga pour ñu sant ko déedéet dëgg la booba mag ñi ci jom ak jigéen ju baax ak. Mm. gaaf gu baax. Mm. ak ndey ju baax. dëgg la tax ñu jëli la indi ci kër gi. dëgg la parce que olof nee na ku la gën gorom moo la gën jabar. dëgg la nga indi ko ci biir kër gi. Mm. kooku bu defee bu deful yëpp la muy liggéey ci kër gaa ëpp def. dëgg la mais bu ñu demee ba ki ci kër gi. di ci sonn. di rey boppam di dugg ko génn. ki dikkul ci kër gi teewu jëm. mën a liggéey mën a indi ci kër teraanga bis bu ne ñu xooñ ñoñcat ko ci biir néeg. waaw yooyu xew sa teraanga ji nga indi. salam bi salam bi mënoon ko dën moo gën coono beeg daw beeg dukk dukk bi dama àkk te doo ma jox dara <laughs> yaa jee ko njëkk a wax waaw doo dégg li yow ma ne nee naa la kay te màggatum géwél ak màggatum géer ah. ñoo bokk ndey ak baay <laughs> lu ñuy def lu ñuy def traak dañuy traak seen doom yi nag la ñuy njëkk traak ki yorul nee naa la na na benn immigré essayé ñëw indi saako. dootoo ñu ñëw ci immigré. waaw ñu dem pause. waaw ñu dem pause c'est que paquet yi ma la jalal non pa papa ni ma la def tey baaxul dama la jalal ay paquet nañ dem léegi dellu si ba tey ci seen émission wareef ci télévision Futur Média dem léegi dellu si ci kàttanu yàlla ñu def pause publicitaire.